département rassemblés, 22 dans les rats, à vos autres commandants. Bonsoir les gars. Donc, les checkpoints seront dressés et occupés par le corps humain. Jimmy va faire la patrouille. Les deux brigades vont faire la patrouille pour les pièces afférentes à la conduite. Ceux qui ont des autorisations, il faut vérifier les autorisations. Donc vous allez faire le dispersé. Soyez professionnels. Donc nous comptons sur vos He de brutalité. Hmm? ensuite de sensibiliser. C'est l'essentiel. Après ça, tout ce qui vous arrive, rendez compte le plus rapidement possible. Hum? On est sur le terrain, on est avec vous. Le coup de fil que nous recevons, d'art d'art, nous repliquons sur les lieux avant de faire quoi que ce soit. À ça, restez à l'écoute. Ok. yaay borom boutique bi. waaw dama ubbi boutique bi. dama ubbi ko. ban waaw lan moo tax tëjoo. damaa ñëw pour pour tëj. yow kay tëjoo da ñëw seen ñuy ñëw ngay tëj ma xool sa pièce d'identité s'il vous plaît ni ma sa carte d'identité. dama lay jël yóbbu la de. ah c'est normal day eh, kii. wol ma ñaari élément jimi ñu nga embar embarqué ma ko kaay kaay kaay kaay soxna si kaay ñu dem kaay te yéen leen ko boutique Kaba. waaw mooy fan. fii poste courant bi fii poste courant bi. poste courant. waaw. moo tudd. Modou Diop. Ah? fii la fii la fii fii mais noonu la loolu mooy suñu liggéey aussi parce que comme da ngaa gëlëm bàyyi ñu gém ñu gém di la indi sa kër. waaw déet ko bi te xamal heure bi mënuñoo génn di ko wëri. waaw waaw. waaw woo nañ ay woote nan mais bu ñu woote ñu ne néewuñu fi. boori pulaay lañ fekk pulaay. ah boori pulaay. jàkkee suñu mbéy mi ah jàkkee suñu mbéy mi non yoru yoru téléphone moom. waaw mais da leen ko bindal comme ni ko commandant waxee jël benn kayit ngeen bind ci ñaari numéro. waaw di ko dugal ci poosam mu di ko gànnaayoo. incha allah rabbi soo yàlla dem ko waaw ñu mën a jël numéro boobu wala wala njëlam gi. incha allah waaw njël bi waaw. da ngeen ko ciy bind takkat yi ku ñëw. waaw moom bu jaaxle sa même lu mu gëlëm gëlëm gëlëm. waaw dana ne sama njël bi ne sama numéro téléphone doom yaa ngi ci incha allah rabbi bu ko defee ñu ngeen ngeen kii ko waaw ñun koy amoon jaaxle trop vraiment parce que mënuñoo gën a jëm fenn mënuñu amul fu ñu koy wëree yoru téléphone yoru dara ah, lañ ko fekk ah gédé ah, ah waaw ngeen gisee taxawaay police ci lu mel ni ci dimbali askan déet moom kay ñu fekk ko ku ni plan yi ca boori gédé mhm. euh, indi ko ba mu ñëw fii ci këram mhm. euh, loolu lu ngeen ci wax yéen njaboot non wax dëgg yàlla kontaan nañ trop moom wax dëgg yàlla ñu moom amuñu lu leen fayee parce que gis nañ dañ taxawoo si dëkk bi vraiment ku jaaxle ñu ñëw vraiment ñu daal kontaan vraiment kontaan trop vraiment kontaan nan moom lii moom amul rôle la moom parce que amuñu lu leen man a fayee parce que ñu jaaxle nan amuñu fu ñu jëm numéro yi xam yëpp woote nan kon woote ñu ñëwuñu fi ñu taxoon ñu ko indi ni ko fi kon te saa ñun amuñu lu leen mën a fayee fii mooy Daaru Marnaan ci poste courant bi rek ban côté la ci Daaru Marnaan ah Daaru Marnaan boo jégee gaara Dakar jëm ci ci raay bi ci poste courant bi waaw kër kawal kër kawal waaw kër kawal moom waaw ah réer gënu waaw defal ñaan ko. noonu ah. sant mu ne. nga Diop la sant Diop. noo sant Diop. Diop nga sant. waaw ah. ah, xanaa réer eh, nga uti woon. bëgg naa ko de. réer nga si uti woon. bëgg naa rek. bismillahi rahmaani alhamdulilah rabil alamin arrahmani rahim malik yawmi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siraatal mustaqiim siraatal allahu la ilaha illa huwa yuhyi la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi yas'alu ila ya'lamu ma bayna ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in illa ma sha'a wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la barke Sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadou bi ngeen ñaan sa Boroom wa taala jàpp ne lépp yéen ñi itam naa leen yal na yàlla defar lép loolu yonte ba sama bay alxuraan yoo xam ne ndax ci ngoon ba tey maa ngi ànd yéen ngeen dox bu ngeen bu doon kenn mën ngeen ne papa fi lu mën a yem daal may wàcc foofa te koy foofu laa fanaan ah, fanaan ndax du am fen fu ma jëm koy itam waaye nag ngeen ànd ak man ba tenkoñ ma ba andi ma fi ah, fii sama waa ñi loolee mu ngi ñaan ci sëñ Tuubaa Cheikh Manoumbe sunu bon yàlla lépp lu nga yittewoo rek sax borom jàpp loolee loolee yonte bi sax bi alxuraan ji xasiri yaa si ahmadou xabbaan maam Ceerno borom daar mu borom béy te maqam barke bi sëñ am na suula. Ah. kii Maseer. Maseer. tàngoor ak wér gu yaram lu gën. kenn ki mooy booy yi nga xamante ne. jàppal ko ay fàqman lañ. voilà wax ngeen ne ne ne ne sànni na sànni na sànni na bu tëdd. kii dafa gën bay nar. waaw ñetti ñetti ñetti booy lañ ñi moom. sigil ñu xoolee. sigil. sigil noo tudd yow. loo tudd Baye Modou. Baye Modou loo fiy def. man man man man damaa ñëw ñëw ñëw ñëw. lan gisuma déglu dara toogal toogal lan toogal assis-toi toogal suuf eh ci suuf toogal. toog naa tàllal sa tànk wàccal xeer bi. ñii nii ñu ngi leen di enquête jamono ji moom la buur di xool ba xam. ñu ngi fóon ba xam butéel bi ban façon butéel la ak lu ci nekk. butéel bu ndaw bi diluant ci nekk. waaw. léegi xam nga ñii euh, kër suñu Mbàkke Mouhamed na benn mbaar boo xam ne benn mbaar boobu nga xam mooy sax kay defaat am na benn mbaar boobu ma nga mag moo fi nekk moo xam ne jaay kaw seeg yooyu fi la nekk am benn lal boo xamante ni bii saaru léegi nag ko nga jox lu féete jamono ji pour waaw waxal Moussa Fall man ko woo si téléphone mën ma ko jot sax la boor ma la woo ma ko jot la si magal si magal magal si la wala nafa lan parcelle daal ñu ngi noonu ñoom ñëpp ñu euh, toog ñu euh, jàpp ni woo oto bi daara jërëjëf ci moom dafa màndi ba mënul waaw ba mënul jub waaw ndax am na beneen loo xamante ni tam euh, Pape Serre ci li ma doon dégg ba ci léegi nga ko doon wax dama liggéey bala ñuy mu mel ni dafa am taxaw waa waa jiibaay am too lañ signalé nii a a baax pour surtout gendarmerie bi féete côté boobu ndax mooy def li nit ñi doon wax rek ay caaxaan lañ bëgg ak ay fo te li ñuy def pour ñoom nga sensé sérieux dañuy faral ci mais bu fekkee yi dañuy fanaan ci école yi dañuy fanaan ci ruqaan yeeg yooyu vraiment finalement di leen bi jëfandikoo mais boo ko jëfandikoo mën ngaa rey communication mooy jàllale lépp baax na jërëjëf. ana kii xaarim. kawana. waaw ndox

Peril. Amoo foo fanaan. lu ne fii yére lan dugg nañ ci quartier yi dugg nañ fu ne donc dans le cadre général ba tey nit ñi sensibilisation bi dama yaakaar na ne comprendre ñu wala bokk comprendre nañ dañuy def lu leen neex te loolu baaxul. donc ñun moo tax ñuy xar suñu tànk tubéy di dugg fu ne di wax ak ku ne di waxtaan ak ñëpp pour nit ñi di rester seen kër ak di respecter les mesures là sanitaire mais gis nañ ni nit ñi daf mel dañ ko soofental wala boog dañ yaakaar ne mbir mi ay caaxaan la ay dàqante ay daw dugg ba tey amaguñu conscience wu. feebar bi ba tey amaguñu euh, euh, cër ci feebar bi te pourtant war nañ ko mën a am war nañ ko mën a dégg ndax gaa yi ngi wax télé gaa yi ngi wax rajo ñu ne ñoo ngi wax ku nekk ngi wax donc ci loolu noonu sénégalais vraiment damay delluwaat damay delluwaat di wootewaat wala di waxaat que nit ñi nañ bàyyi caaxaan bi nañ sérieux ci li ñuy def nañ bàyyi caaxaan bi nañ sérieux ci li ñuy def nañ am considération ci li nit ñi di liggéey wala li nit ñi di daj parce que lépp pour population bi la du pour man du pour ma sàmba du pour ma demba suñu cër la suñu liggéey la suñu sacerdoce la dañ koy def donc bu ñu weesoo loolu donc gis ngeen aussi am nañ ay yenn interpellé ay surtout ci bi ñu demee ci bopp jumaa ji noonu donc gis nañ fi ay xale yoo xam ne vraiment dañu toog hmm, di làqatu ci taatu garab yi di fa def naka sudul noonu di ginze et cetera te ci loolu loolu c'est tout tout près de la mosquée ci wetu jàkka ji la donc loolu aussi vraiment ñëpp war nañ ci mën a veiller muy population yi muy kenn parce que ku ci gis ku ci ne muy def naka sudul noonu war nga xam mën a dénoncer bu ko defee police xar ci tànk tubayam kon donc alhamdulilah la ñuy wax ci côté boobu dugg nañ ci marché yi dugg nañ ci yenn secteurs yëpp mais foofu aussi euh, macha allah donc yàlla defal nañ ci xéewal ak jàmm. boo xoolee tey ni ñu doon liggéeyee la fois passée ak ni ñu liggéey tey am na différence tey boo ni ñu ci bari dañ leen interpeller ñu ci bari dañ leen jàpp dugal ci oto bi. parce que aussi yaakaar naa ni mën mënuñu toll ci yenn période yi wala yenn moment yi di continuer di négocier rek au départ boo gisee ñuy négocier di wax c'était pour sensibiliser mettre au parfum les gens là ñu mën a xam fan lañ toll ak ci lañ lañ ne ak lu xew ci jamono mais yaakaar naa ne fi ñu toll nii gis ngeen sax am na ko xam dañ ko laaj ne que tey la combien de jour ci couvre-feu mu mu wax ko donc am na lu tax parce que xam na ni il est sensibilisé il est looloo tax boo xoolee tey suñu wàllum liggéey sax am na lu ñu ci soppi tuuti on interpelle directement ak ku mu mën a doon on te conduit au poste bu ñëwee nag avec le chef de service il va voir comment comment gérer mais avant couvre-feu bi ñoo ngi doon def ñoo ngi doon def lii seulement yéen presse bi léegi ngeen jot ci liggéeyu police nii mais avant couvre-feu ñoo ngi doon def lu raw li parce que bonne heure lañ ko doon commencer ñun 16 heures des fois lañ ko doon commencer ba 5 heures du matin 16 heures laa la 16 heures da nga gis check point yi da nga di opération yi moto yi ñu leen di jàpp et cetera jàppal bay di def ay contrôle sur les véhicules mais brigade de recherche yi aussi dañ doon dugg ci roq-roqaat yi xam nga ñu am benn dispositif discret de surveillance boo xam ne dañ ko doon teg boo xoolee ci diggante bi ñi fi defoon yenn kaas yi wala yenn yenn yenn yenn yenn njombe yi ñu ci bare am na ñoo xam ne jàpp nañ leen ci donc loolu ci sàmm suñu kaaraange ci la ba léegi xaaxamoo sàmm suñu kaaraange ba léegi ñun ñoo ngi koy wéyal te ñoo ngi ci niveau sàmm suñu kaaraange deux ba léegi ñoo ngi koy wéel gis ngeen li tey li ñu mujj def noonu dem ci bopp jumaa jeg yooyu loolu sa loolu bokkul ci couvre fa dafa bokk ci lut contre la grande délinquance mooy sàmm suñu kaaraange bi mooy waral ñuy dugg ci marché yi di wëndeelu ci biir marché yi di xool ndax kenn dajjiwul wala ñi fay taxawaalu ñan la di leen identifier xam nga marché kenn dëkku fa mais boutique ay alalu jàmbur moo fa ne la protection des personnes et de leurs biens donc faaw nag ñu sàmm sàmm sàmm nit ñi seen alal waaye faaw ñu wax nit ñi aussi toog leen seen kër bu ñu nee leen toog leen seen kër ñun tamit dañuy génn sàmm loo leen seen alal. xam nga sénégalais moo moo mel noonu sénégalais ci boppam moo bëgg affaire fo affaire caaxaan affaire dóor dàq ak alkaati ñoom loolu lañ bëgg boo xoolee ba léegi ñoom dañ yaakaar ne lii mbiru police la ñoom gëmuñu ni lii mbirum feebar la mbirum sante la dañ gëm ni lii mbirum police la ñoom loolu lañ ko jàppee donc nag moo tax ñuy ubbi benn buntu. bu police ñu daw tëj wala du ubbi ñaari bunt bu police dawee ñu daw tëj alors que te loolu mën na ñàkk ñooñu nag bu dañ souvent dañ lay jox convocation nga ñëw wusi ñu wala souvent bu dee comme jeune la ñu interpeller la indi la commissariat boo xëyee aussi ñu daggaloo la amende forfeteur bu ñu la ko defee deux fois trois fois dootoo ubbi. ñooñu ay mbayeen lañ wala ay sambeen wala ay looween wala ay. ñu teg seen ceebu jën bu fàtt tara toog ci mbedd mi waaw te kilifa yee ko def bul wax na lañ dénk kilifa yi kilifa yee ko def dooy xale yi ndaw ñoo ko def de non non non non responsable famille ñoo ko def ñoo toog ci digg mbedd mi taaj seen bool ceebu jën bu fàtt taraj di ko lekk comme si rien gisoo xale ci biti ah xale yaa ci biir kër gi xale yaa ci biir kër gi loolu mag ñi ñoo ko def les responsables ñoo ko def alors que loolu mën na ñàkk loolu mën na ñàkk c'est-à-dire que il faut que nit ñi agir en responsable nit ñi def seen fulaak fayda yar seen i doom yar seen kër am kàddu ci seen kër ñoom seen bopp li ñuy wax xale ñoom ñu jiitu ci waaye doone yow du mag mi nga nekk ci biti ni faa wàcc xale yi ci biti kooku vraiment man loolu amul ma ci wax. xam nga rajo yi wala télé yi wala euh, YouTube bi yu kenn xamul kilifa yeeg ñëpp koy seetaan actuellement te ku ci ne dégg nga la ñu wax loolu pour ñoom la. parce que tey fi tey man bu fi dee kilifa laa wala kilifa diine laa ma yor ay ndongo ñu taxawaalu ci biti wala di dem fu ne ba ne cuus feebar bi te ñoom samay samay njege njege ñaale lañu bu ñu ma ko damay feebar donc nag mesure yooyu ñoom ñoo ko war a mën a gën a mën a jël ndax ñoom mbooloo mi dañ leen di fréquenter donc disposition yooyu ñoom ñoo ko war a gën a mën a jël te pourtant wax nañ ko fu ne boo seetloo nag ñoom ñoo gën a tax maanaam des fois ñuy xëqante ñoom njaboot googu noonu njaboot yooyu noonu dañuy confronter ak ñoom des fois ni leen jóg leen tëni da ngay dégg kun la déwuma tëri fenn am na ko xam fii la taxaw saaga éléments yi ndey couvre-feu mënut a am exception seulement bu amee kuy circuler da ngay am autorisation ku amul autorisation koo xam ne ordre euh, par exemple euh, hôpital nga jëm évacuation sanitaire lay doon wala yooyu ñooñu ñooy exception yi mais bu dee yow da nga war a doxi sa soxla rek parce que man la man la man la Moussa wala man la Pape Seyane Mbaye damay doxee sama soxla rek lu ma neex laay def loolu lu may kooku fan nañ ne feebar bi amul exception de amul patron bi amul baadoola bi amul buur bi amul kenn bu la dalee dalee faagaagal te da ngay dem nga wàll sa njabar wala nga wàll sa waa koñ loolu mooy indi cas communautaire bi professionnalisme permettre nañu ñu am esprit de dépassement xam ni kii il est momentanément égaré maanaam dafa riir rek par jamono te ñun suñu cër mooy ñu gindi ko mais du pour yàqal ko déedéet xam nañ ni moom population civile bi il n'a pas compris ñun suñu cër ak suñu capacité mooy tax ñu xam xamal ka lan mooy lan ba pare nax ka ba ni ko ciix teg ka ci yoon bu ëllëgee war na mën a xam ni lii du ay caaxaan certes d'accord naa ak yow parce que gis nga tey nit ñu di yuuxu ak di saaga yu kenn xamul loolu tax nga posé ma question boobu mais loolu du dara tàmm nañ ko suñu suñu liggéey la nee nañ dañ lay wax ne la policier bu def liggéeyam dëgg dëgg dëgg dëgg kenn du ko gërëm parce que toujours li population bi bëgg c'est contraire à la loi par exemple joxe nañ couvre-feu nit ñi ñëpp nañ dugg seen biir kër mais gis nga ni ñoom mbayeen yeeg sàmbe ni ci biti la ñuy teg seen digg bool yi di digg mbedd mi ci digg bi di reer te loolu mën na ñàkk am naa nijaay bu mel noonu te sénégalais laa ku mu doon yow nga fekk sa way juru góor ci biti xam nga doo ko fa bàyyi mu fanaan ci biti dinga ko jël ba yóbbu sa biir kër noonu nag laa koy jàppe ci sama bopp ñun police noonu la ñuy liggéey noonu la ñu koy suñu bopp dinañ la jël jëm la identifier naxante ak yow même boo gëlëmee ñu jéem a xam ba fa nga dëkk ñu naxante ak yow ba yóbbu la fëgg sa waa kër jox leen ko waxtaan ak ñoom conscientiser leen ñi leen prochainement taxawe leen nii ak nii ak nii parce que aussi mag day dem ba tool foo xam ne certes day naqa day yor mais yow tamit yaa koy mën a comprendre pour pour mën a moom jamono métti na kenn talu kenn nit ñi dañuy xëy wuti xaalis moom bu génnee rek bu gaawee gëlëm rek dootoo ko gisaat donc nag ñu xaw ci farlu rek maa ngi koy ñaax noonu ci sénégalais yi